ci ñaar col ñett ci weeru sawaal ci 1332 ci gàddaay gi buñ ko fàttali ko tey ci ñuy def nii boobaa léegi téeméeri at la ak juróom benn téeméeri at ak juróom benn ak fukki weer ak benn ak fukki fan ak ñaar ren ji ñaar fukki at ak juróom ñeent sëriñ siit yi ak i rakkam mboolem njaboot gi àndandoo di ko ngir wax te si ñëpp daa taxawoon ngir jëmmal yaakaar jooju waa lim ci digle di ko digle jaamu yàlla berne jàng alxuraan jàng xasida salaatu lu waaye mën ci lu baax lu waaye mën ci tëral lu waaye mën na bëggal nit ñi ci lu lislaam na ko nga def ko lépp loo xamante ne yàlla dugal na mu doon lu neex sëriñ bi kenn ko di ko dox jëm ci te képp ko dox jëm si ci bis bi nga bàyyee xel kuy lu baax fexeel ba am lu baax te ko maa ngi jaayanteel sëñ Tuubaa la ñu topp sëñ Tuubaa li ñu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yoon bi nga topp bu jaayantee mooy yeneen bi nga jaayanteel te bu jaayantee yéen bi yàlla nga jaayanteel ci ne li yu bari noonu ak ci yu bari woon Allah Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri